démocrate yi yi ñuy partagé ndax expérience état bi mu am Macky Sall amu ko ndax ñi mu àndal ñëpp ñu wër ko am na ci ñoo xam ne sax dama bokkoon ak ñoom militantisme ci parti politique ku mel ne at Dansokho ma wax ne gis naa Macky ci at yi passé ci yoo xam ne dalul sama xel te xamuma ndax changé na ci loolu am déet. lu mel nan maanaam lu mel nan. gis nañu ko fi mu fekk foqati. Euh, bureau électoral ne day voté mhm. gis nañu ko fi gis nañu ko fi ci yeneen yoo xam ni mënuñu ko fàtte te fàttewuñu ko te xaw ma ndax loolu dañ na feem déet man mii di wax ak yow gis naa ko aussi ci li nga xam ne yenn média yoo xam ne daf leen doon soutenir noonu la doon la doon tra traité ay sénégalais de digne waaye am na ci loo xam ne tuub na ko am na ci loo xam ne critique la ak erreur nangu na ko am na loo xam ne am na ci loo xam ne assumé na ko mhm. waaye bi ma bindee loolu dama wax ne bu dul woon sama engagement ak Moustapha kon Macky lay tànn lu tax may tànn Macky moo di opposition à Abdoulaye Wade ni ma mhm. ko ci gisee ni ma ko ci ràññee ak liggéey bi mu liggéey kenn liggéeyu ko ci at yi ñu génn ci opposition Abdoulaye Wade mhm. wax ne loolu moo tax ba. Mhm. mérité na nekk président du Sénégal. waaw sa choix ci sa choix ci Moustapha Niass lan moo lan moo ko waral yan qualité la euh, wan yan critère la lan moo tax nga choisir ko comme comme sa candidat Souleymane Moustapha Niass. dama wax ne euh, kuy jiite Sénégal dafa war a xam am expérience d'état ñëpp ràññee ko ñëpp xam loolu ci moom waruta ci man am lu mu joteeg bilan négatif bu Ablaye wat ci at yi génn dafa war a nekk koo xam ne dafay yemale taarixa yi ci Sénégal bu fekkente ne damay xaar ci moom mu nekk ku gëm yàlla ku màndu ma xalaat ne ku am yërmande ci sénégalais yi la war a bokk ma xalaat ne il doit être le plus rassembleur surtout parce que dañu toll foo xam ne ci suñu jaar-jaaru réew dañu soxla dajalewaat nit ñi ñu nekkaat benn ndax dem nañu ba toll foo xam ne mel na ne sax tariixa yi dañuy concurrencer seen biir dañu leen xaajale ba nga xam ni tey dafa am espèce yi malaise ci diggante tariixa yi parce que pour la première fois mën nañoo ne il y a eu un vote religieux au Sénégal mën nañ koo wax parce que am na tariixa yoo xam ne dañu am péete am tarixa yoo xam ne dañu mer ba wone ko mu fés te lu ko waral mooy problème division yi ñu indi diggante tarixa yi mu am ñu ñemee taxaw wax ne man sama tarixa moo ma gënal sama tarixa lay jàppale mhm. ma xalaat ne Moustapha Niass ci wàllu woowu moom moo gën a dal sama xel mhm. bu ma koy def yëgaluma ko ko bu may su koy choisir yëgaluma ko ba tey jii Moustapha Niass woowuma tax ne ma Souleymane jërëjëf ci li nga ma soutenir moo di ne ba ma ko defee yëgu ko waxuma ko ko te ba ma ko defee ba léegi waxuma ak moom du téléphone du bindante bu ñu bindante dama ko def à mon âme et conscience parce que je pense que moom mooy gën a rassembler lu tax ma ne mooy gën a rassembler mhm. moo ëpp sensibilité politique religieuse yu am yoo xam ne ñoo nekk ci Benno Siggil Sénégal bi mu jiite d'accord loolu moo tax ma xalaat ne mhm. Moustapha mu ne Mhm. Ah, moom laa war a jàppale. waaye jàppale boobu. Mhm. newut ne dama koy jàppale parce que dama yaakaar ne dafay gagné. d'accord waaw. Mhm. voilà Souleymane euh, li li jaaxal ñu bari bu ñu la déggee wax nga ni Moustapha Niass mooy sa candidat bu dul woon moom Macky la dégguñu nga wax sa Seck te ñu bari dañu xamoon seen jaar-jaar ngeen àndoon liggéey moment yi mu nekkee primature laataa ngay génn Sénégal di dem ñu xamoon seen diggante yéen alors que choix bi romb ko lu tax loolu. waaw papa ngañ damay bañ def loo xam ni ëllëg nit ñi dina ma xool nee ma rusuloo yaa ñu waxoon ne nañu def li kon damay tànn koo xam ni ëllëg bokk na ci critères yoo xam ne xëy na liimaalewuma ko waaye tuddoon naa ko muy koo xam ne nitu kàddu la ñu wax li ëllëg mu def leneen ñu wax jaar leen gauche ëllëg mu dem droite donc dama wax ne ku nuy tànn parce que ci kaddu rek lanu mën a déggoo engagement bu nuy jël engagement kaddu la dinaa def lii fal leen ma manuma cee teg koo xam ni amuma garantie ne ëllëg li fi xewoon nu gis ko fi muy nu dem ba une semaine de l'élection mu dem waxtaan ak ab Ablaye wat loolu du fi am garanti boobu mënuma ko joxe papa rek du ne euh, sama relation moo changé walla dara du du avenir relation diggante Souleymane ak Idrissa avenir Sénégal moom la wax te bu boobaa man ci critères yi ma lim ak ci lii xool ci détermination aussi dogu ci xeex nguur gi ñaar ñi ma la liimal mhm. kii moo gën a dal sama xel. kii liggéeyam moom laa gën a reconnaître comme mérité woon ko. waaw. d' accord loolu dégg naa ko ci beneen wàll moom mais di nga am xëy na euh, jàngat ci résultat Idriss parce que fi mu nekk nii ñoo ngi koy gis euh, gannaaw 2007 mu nekkoon deuxième ci Abdoulaye Wade ñu gis résultat yi bu nekkul cinquième daanaka dafay nekk quatrième loolu aussi noo ko noo ko gisee. ah waaw xam nga Sénégal euh, du nu fàtte Sénégal dafa am yoo xam ni kenn du ko fi def Sénégal dafa am yoo xam ni. kenn du ko fi wax ñu bàll ko ah, nit dafa précieux du rek lu mu war a clamer nit ñi di ko dégg nit da nga koy respect respecter nit moo di aussi bañ koo teg dof benn yoon ba nga yaakaar ne man ngaa ñëw lu la neex nga wax ko ko bu ëllëgee mu dellu si topp mhm. dafa am yoo xam ni Sénégal yi dégg nañu ko fi mënuñu koo fàtte sénégalais yi gis nañu ko fi mënuñu koo fàtte Idrissa ci boppam def na erreur yu mag a mag ci wàllu bi muy désigné ci sama xalaat mm-hmm. ah directoire politique am bugg a imposer euh, boo xam ne mujjut sotti parce que dafa boole ay univers yoo xam ne bokkuñu univers technique intellectuel universitaire ak univers politique bokkuñ bu bëgg def grève boo xam ni mën naa ni réussir. Mhm. non directrice bi nga bëgg a wax notamment Léna Sène wala. Léna kenn la rek Léna kenn la am na compétence xëy na jàng na jàng bu sori dëgg la waaye xamut politique xamut paysage politique sénégalais xamut classe politique sénégalais xamul terrain politique sénégalais. directeur de campagne lu diis la waaye du leen rek ak ñeneen ak i ñeneen ba nga xam ni yooyu yëpp am na ci waaye ilia aussi que pour être juste avec Idrissa ni nu ko xeexee xeexuñu ko benn homme politique dans toute l'histoire du Sénégal moom rek la nit ne njiitu réew def déclaration publique ne ñépp mën nañu maa wutu ba mu des kii du fi amee lu ne ñu teg ko ko ba quelque jour à quelques jour de l'élection ñu convoqué ay nitam ñu nga xam ne ñoo koy jàppale ñu convoqué leen division des investigations criminelles loolu am na ci mhm. mais ça n'enlève rien faute yi Idrissa commet erreur yu mu def bokk na ci dem tiim nit tiim sénégalais yi di wax Ablaye Wade mi nga xam ne moo ko tëjoon kaso ba sénégalais yi di ko jàppale mu naan Ablaye Wade may xar bu la neexee nga rendi ma mhm. loolu sénégalais yi duñu ko ko baax. d'accord waaw. ak yenn erreur yu mu def. ci mm-hmm. wàllu li mu wax ci affaire xaalis. Mm-hmm. waxoon naa ko ko fi ma ne ko amuloo droit wax ne xaalisu Sénégal Ablaye bu ko neexee mu taal ko. Mm-hmm. amuloo ci droit. d'accord donc ay erreur la yu mu def. voilà loolu loolu loolu loolu wax nga ma ko ci euh, ay résultats euh, Idrissa ak coalition mais résultat parti socialiste Ousmane Tanor Dieng bett na la wala bettu la. déedéet bettu ma de waxoon naa ko de. ah bettu la. déedéet papa ngañ bettu ma waxoon naa ko fi Ousmane Tanor Dieng parti socialiste en réalité boo gisee ñu battre parti socialiste moo battre Abdoulaye Wade en 2000 boo gisee parti socialiste battre Abdoulaye Wade. Mhm. Tanor bi mu leen buggoon a imposer ci parti bi te bëgguñ ko moo tax. mu indi ko 96. ñu ne nu woote mu ne leen bu ngeen ma wóoloo na ngeen ko wóolu ñooñu d'accord mu def ko premier secrétaire mu dàq jiboka Abdou du bañ a arbitrer arbitrer en faveur de Tanor ñu ñëw bureau politique dàq Moustapha Niass Moustapha Niass dem 2000 ñëw parti socialiste retourné wu contre Ousmane Tanor Dieng diggante quatre-vingt-seize ba deux mille Ousmane Tanor daanaka moo yore woon gouvernement yore parti mooy buum mooy buum mi mooy nommé ministre mooy nommé lépp donc il était comptable tamit du bilan gouvernemental du PS waaye bilan boobu ce n'était pas si mauvais bi Mamadou Lamine Loum ñëwee yëf yi xawoon naa baax tuuti mu dem nekk directeur de campagne Abdou Diouf Abdou Diouf perd ak xaalis bu ñu ko jox ak moyens yu ñu ko jox ak moyens de l'État ñu sanctionné ko lépp loo xam ne lu bon la woon ci parti socialiste daanaka Ousmane Tanor Dieng la ko sénégalais yi identifié ñoom xaritam yi ñoom mbay Diouf ak këru Sacré-Cœur yu ñu doon maye ak yu bari ma ne parti socialiste suivre lu leen seen logique ba mu yegg. parce que ku per ku nekk directeur de campagne d'un candidat il dirige un parti am Abdou Diouf bàyyee ko parti bi parti boobu perte bu ngeen di tiire bilan kañ bilan bii ngeen dëkk war a tirer mooy que ni kii leen yóbbu ci défaite quatre-vingt-dix-huit mhm. pour la première fois ngeen am moins de cinquante pour cent ngeen demaat élection deux mille ngeen perte mais kooku moo war a njëkk a dem mhm. Mhm. waaye dañu jël kooku def ko candidat. Mhm. mu jiite seen parti. Mhm. ñu ñëw 2002 ñu perte élection. ñu ñëw 2007 perte élection. dafa bari ci ay défaite donc parti socialiste boo koy seet depuis 2000 ñu ngi perte 30 pour cent de leur électorat à chaque élection 30 pour cent. donc c'est pas surprenant que Tanor perte. d'accord troisième raison bu tax ma ne mbettut kenn. waaw mooy que ni gis nga ne parti yu bari bu ñu nekkee bennoo parti yu bari Moustapha Niass la ñu àndal wax dëgg yàlla. mu mhm. dem def bennoo ak Tanor. bi muy def bennoo ak Tanor daanaka mën naa ne parti socialiste suudewul woon bu baax parce que gis nañu ay tatatal sal ak Khalifa Sall bu nu noppee yi tamit. Mhm. ni Tanor diriger parti socialiste. am na lu bari loo xam ne nit ñi xam nañ ne neexu leen ci woon waaye dañu noppi rek topp ko problème yooyu nag jëm nag dina surgir. Mhm. waaye bu ma doon tanoor. Mhm. te waxoon naa ko waxoon naa ko wax dëgg yàlla. Mhm. bu ma doon tanoor tooguma bu mu am defet ma di ko wax bu ma doon tanoor damay topp ci ginnaaw yi Moustapha. lu tax Moustapha raw ko moo di mooy li ma wax sànq moom il a le plus grand parti. le parti socialiste waaye. Moustapha Niass mooy gën a rassembler. Mhm. maanaam moo gën a mën a dajale boole nit ñi. Mhm. Tanor c'est un personnage controversé. Mhm. donc loolu moo indi résultat yi mu am. d' eh, mais yaakaar est ce que yaakaaroon nga dina yomb parti socialiste topp ci ay AFP est ce que loolu sa xalaat la rek mais est ce que gis nga ni loolu même bu ko Tanor bëggoon euh, ñenn ci biir parti socialiste nekk ay baron dinañ ko fekk ci loolu. yaakaar nga que ni parti socialiste mën na. Euh, topp ci ginnaaw parti AFP bu Moustapha Niass. ak histoire bi ni nga ko nettalee léegi. li nga wax dëgg la waaye bu loolu amee moom bu ko mënul xam nga lu muy firnde. Hmm. amul lu ñuy wax leadership ci partem mooy kilifteef. d'accord. Hmm. léegi euh, ci beneen ponk parce que itam bari na candidat yoo xam bëgg naa ñu jàngat euh, seen résultat mais bala ma ciy ñëw bëggoon naa avenir politique gu Idrissa Seck ak Ousmane Tanor nga résumél ma ko rek ban gis-gis nga leen gisal maanaam ci seen ëllëgu politique ñoom ñaar ñooñu Idrissa il est jeune politiquement dafa teel a dugg ci politique bi mu ciy dugg 17 ans la am bi muy njëkk nekk directeur de campagne 29 ans la mu ngi doog a am 52 ans loolu ci politique bariwut boo ko boo ko mënee comparer ci at yi Moustapha Niass am tey di présenté wu wala at yi Tanor sax am wala at yi Ablaye Wade am xam nga du dara. man mhm. na noo ne xale la. waaye deux défaites électorales dafay wàññi nit. Mhm. Idrissa dafa am ñoo xam ne ci campagne bi ñu ngi doon def lu nuy wax campagne de notoriété. Mhm. moo di dañuy campagne rek pour nit ñi xam leen. Idrissa du woon loolu. Idrissa dafa doon campagne pour gagner parce que ñëwoon na élection bële jël deuxième. donc élection bi waru ko woon a manqué loolu dina wàññi lu bari bari bari ci moom surtout ci confiance yi nit ñi mu àndal ak nit ñi nga xam ne ñooy ñëw ëllëg ci moom li nga xam ne moom mooy problème am aussi te dina ko am mooy ci parteem dina nu ko demander de comptes parce que dafa ñëw imposer leen choix ni leen lii mooy choix bi d'accord ñu ci woon waa parte ñoom Oumar ne ko ah lii mooy lan ñoom Papa Diouf ne ko ah lii mooy lan mu ni leen lii mooy sama choix dangeen may wóolu parce que xam naa lu tax ma def ko mhm. mu jël xale bu jigéen boo xam ni bariwul expérience noonu teg ko foofu jël yeneen xale yu mu jëlee nee na ci ay université ñu diplômé mu indi leen teg léegi les cadres politiques yi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom dañu ko toppoon parce que dafa am lu nu seqoon par le passé ak teranga bu nu seqoon ak xëy na dañu ci seet kóllëre ndax li mu leen defal ba mu nekk ci gouvernement waaye ñooñu dinañ ko ne léegi def nga choix le choix n'a pas été bon mhm. faute la erreur la il faut nga tirer ci conséquence mhm. dégg nga mhm. normalement après deux défaites bu doon un parti organisé démocratiquement mu am yeneen cadre dañu koy wax ne abaleel keneen ñëw dégg nga mais ci reconstruction bu fekkente ne dafa bëgg a defaraat parteem wala dafa bëgg a préparer yeneen échéance dafay fexe ba am député yu bari parce que bu leen fàtte ne fii ak ñetti weer ñeenti weer. dinañu dem ci législative bi waaw assemblée nationale waaye assemblée nationale toujours en général fii ci Sénégal confirmation présidentielle la mm-hmm. dégg njort naa ne bu nu demee assemblée nationale. ab Abdoulaye Wade du am dara waaye Macky dina am lu bari parce que tendance bi mu am léegi daf koy accompagner pour quelque mois encore mhm. avant muy muy jël pouvoir bi nit ñi di commencer peut-être am ay déception di wàññeeku kon euh, Jules da nga jàpp ni Macky mooy gagner deuxième tour bi loolu nga jàpp ah bu fekkente ne dañu dem deuxième tour hmm. ci anam yi nga xam ne noonu laa ko déggee hmm. Ablaye Wade mënut a surmonter un écart de quinze pour cent ab ab Abdou Diouf ba ko Séné ba ko Ablaye Wade di gagné. Mhm. booba Ablaye wat booba Abdou Diouf quarante deux pour cent la am. Mhm. Ablaye Wade moo wax tey ne pour le moment trente deux pour cent la am. Mhm. trente deux pour cent dafa sori cinquante pour cent lool te tamit dafa jeexal réservoir am yi mu mën a am ci soutien. te dafa topp opposant yi nga xam ne moom lay wax tey dina dina waxtaan ak ñoom kii kii ñu mën a xalaat dafa wax ne jamais du ko wuutu saaga na ko sonal na ko yóbbu na ko kaso lu ne def na ko ko mhm. keneen ki ñu mën a xalaat muy Moustapha Niass toroxal na ko bëccëgu dara kàmm dax ko gouvernement mhm. keneen kii ñu mën a wax muy Ousmane Tanor Dieng saaga na ko fan yi passé nee na c'est un fasciste il n'est pas démocrate te gisuma kenn kuy risqué fii mu ne di dem soutenir Ablaye Wade ñaareeli effet boo xam ne nanu ko ci xaar moo di ne bu ñu annoncé officiellement deuxième tour di nga gis ñoo masuta xalaat ne dina ñu bàyyi Ablaye Wade ñu bàyyi ko bëccëg dem fekki Macky Sall. ah bon dina fi bari. ah oui hmm. oui ah ministre député sénateur dina ci bari. Mhm. moo tax ma xalaat ne Ablaye Wade li mu war a def li nga xam ne ça serait plus intelligent. Mhm. mooy mu retiré wu ba noppi négocier. d' accord loolu de benn benn parenthèse la boo xam ni yow yaa ko ubbi comme da nga jàpp ni Macky mën na nekk mën na gagné deuxième tour bi moo taxoon ma bëgg nga expliquer ko mais bu ñu revenir euh, ci euh, maanaam ëllëgu mm, kàngam yooyu ma la wax notamment Idrissa ak Ousmane Tanor yaa ngi tolloon ci Idrissa euh, ci daanaka bi ngay conclure avant ñuy ñëw ci Tanor lan nga ciy eggale ci avenir politique am Idrissa. ah dama doon wax ne Euh, am na intelligence politique Idrissa lii xaw a bett nit ñu bari mooy campagne bi gisuñu mu def ci moyen mhm. xamuñu ndax dafa amut moyen am dafa denc ay moyen parce que dafa yaakaaroon ne Ablaye Wade du bàyyi te du nanguñu gañe ko loolu lu jara bàyyi xel la mhm. donc dafa gëmul woon ne élection bi mën na cee war na cee def moyen peut-être pour préparer yeneen confrontation électorale mm-hmm. waaye foofu aussi mën na ne ne intelligence politique am doxu mm-hmm. bi muy tànn ñu ma la wax mu tànn ne nañ diriger campagne am tamit mm-hmm. intelligence am politique am doxu doxut Idrissa dafa am loo xam ni moo ko yàq il a beaucoup de qualité mooy waaye dafa wóolu xelam trop lu bari dafay faral di juum parce que dafa woolu xelam ba ñaare yenn yi du déglu nit ñi te dafa baax di déglu nit ñi qualité bi ma reconnaître Macky Sall mooy capacité d'écoute boo xam ne képp kuy njiit képp kuy kilifa boo du déglu say conseiller ñu ñu di la wax nga xam ne sa xel matut boo ko du def ci erreur ngay dëkk waaw am na ñaari façon déglu nag mhm. façon bii Ablaye Wade di dégloo mhm. mooy da nga koy wax lu ko neex mbaa mu dàq la mhm. léegi am euh, na beneen façon boo xam ni da dégg loo xam ne neexu la nga nangu ne mooy dëgg waaw waaw euh, dogguma la Souleymane mais xam nga euh, forme bi Idrissa campagne yow da nga jàpp ni xëy na dafa am gis-gis bu mu am ni Wade mën na mën na jëlaat pouvoir bi mais moom waxul loolu li mu wax moom mooy campagne bi paasewul place de l'indépendance parce que argument bi mu avancé mooy euh, mënul nekk euh, ci réew mi ñu interdire ko benn place alors que constitution bi jox na ko yelleefu moom mu war fa mën a nekk moom pour moom xeex bi war a jiitu nekk fondement xeex bi moo nekk xeex boobu est-ce que kon propos yooyu dafa la yeyul yow. non non loolu erreur la erreur la dama ni leen mënuñoo battre campagne ak sénégalais yi ci benn thème rek mooy Ablaye Wade dafa war a dem. mënuñoo battre campagne ci loolu te man daf ma wóoroon ne loolu moo tax ma doon ñaax nit ñi ne nañu wote ci daf ma wóoroon ne que Ablaye wat mën naa dem ci ay carte mën naa jóge Sénégal sénégalais yi mën nañ koo battre ci ay carte li ñu bëggoon a def impasse la doon indi parce que bu ñu deful woon attention tey am na ñoo xam ne proposé woon nañu Ablaye Wade mu toogaat fi juróom benni weer ba ci juróom ñeenti weer mhm. parce que wóoluwuñu ne ab Ablaye Wade man naa dem ci carte te tey sénégalais yi wane nañu ne Ablaye Wade mën naa dem ci ay carte te ils sont déterminés plus tey sax que démb bi ñuy dem di woote dégg donc foofu aussi bu fekkente ne loolu la xalaat def na ci erreur parce que dafa concentrer toute sa communication ci ne Ablaye Wade na dem te ab Ablaye Wade dafa am moyen institutionnel moyen étatique ba noppi conseil constitutionnel yokkal ko moyen légal juridique pour mu wax ne kuréel gi nga xam ne moo war a wax ki mën a présenté wu ak ki mënta présenté wu neen man man naa présenté wu mhm. mu appuyer ko ak moyen de police mhm. dégg nga mhm. donc finalement stratégie bi nga xam ne moom la sénégalais yi sanctionné positivement nu wax ne mooy bu baax bi nanu ko nangu mooy bu Macky Sall d'accord waaw mooy bu Macky Sall ñu nangu ko dégg naa li nga wax foofu mais bu ñuy jeexal ñu ñëw ci bala may aborder yeneen candidats yi bu la ko sa temps permettre euh, ëllëgu euh, avenir u euh, Ousmane Tanor Dieng ak parti socialiste nga ñëw ci bala may aborder yeneen candidats yi nan nga jàngati seen ay résultats. waaw parti socialiste dinañu am toujours socle lu noo wax socle électoral. Mhm. mooy nit ñoo xam ni. bu nuy woote PS dañu dañuy gëmm xamuñu kan moo ko jiitee xamuñu kan mooy candidat faalewuñu ko. vote affectif la quoi vote affectif lañ koy wax. peut-être mu mooy suñuy maam nga mhm. xam ni te ak Lamine Gueye lañ daan woote ba tey. Mhm. ak ñoo xam ne dañ ci du juddu parce que parti socialiste c'était aussi une école de formation politique. Mhm. boo xam ni dañu lay formater sa esprit sax dañu koy formater. moo tax ñi fa ne gëm parti socialiste. dégg nga. na ay cadre ñoo xam ni ba léegi bàyyiwuñu parti socialiste bari na ay étudiants su ma tukkee ci àdduna bi damay dajeek ñoom di waxtaan waaye ñu ci bari ñu ngi doon préparer déjà Khalifa Sall te Ousmane Tanor Dieng dafa waxoon ne bu élection yi passé dafay bàyyi. Mhm. dégg nga. Mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi doon préparer Khalifa Sall euh, Khalifa Sall. mu ngi yore mairie de Dakar mhm. donc c'est un instrument politique tamit parce que di nga am moyen ndimbal di nga am moyen d'action yoo xam ni boo dee politicien simple doo ko am budget mairie de Dakar kenn xamul lu mu toll mhm. ba nga xam ni tey moom laa gën a xalaat ne mooy jël parti socialiste moo ko war a jël mhm. te sur le plan historique am na is am na légitimité boo xam ni moom daf koy wax te nit ñi duñ ko déglu dafay wax toujours maag part maag Ousmane Tanor Dieng bokkuñu histoire ci parti socialiste. Mhm. parce que Ousmane Tanor Dieng dañu ko parachuté ci parti socialiste. Euh, Khalifa Sall dafa nekk pionnier nekk jeune nekk responsable jeune nekk responsable des élections ba tey nekk responsable vie politique parti parti socialiste kon yàgg na ci am na légitimité boo xam ni mën na ko valoir yàgg nekk na maire de commune d'arrondissement. nekk na tey maire de Dakar la capitale du Sénégal. Mhm. kon kenn gënu ko placé pour diriger tey parti socialiste et aussi il a une base populaire mooy la base wolof. Mhm. boo xam ni ah c'est important parce que euh, loolu aussi dafay déterminant. le Cap-Vert moom mooy un cinquième de l'électorat bu Sénégal un cinquième plus d'un cinquième bu électorat du Sénégal électeur juróomi électeur yoo jël. kenn ki ci presqu'île du Cap-Vert la nekk. Mhm. dégg nga muy loo xam ni lu am solo la te présent na ba noppi noppi Ndakaaru kon nañu ko boole ci ñu nga xam ni ci juróom-ñaari at yi di ñëw mbaa juróomi at dinañu compter ci relève parti socialiste. d'accord préparé ñëw. Mhm. et mhm. troisième élément bi nga xam ne. moom laay wax ci moom. moo di aussi nekk. amul le amul le complexe du bilan social. Mhm. dégg nga. Mhm. Tanor daf ko am. Mhm. parce que Tanor dafa gérer dafa diriger parti socialiste moom amul complexe boobu euh, taxaluñu ko torop ci lépp luñ daan wax ci parti socialiste ba xam ni am na avantage boobu te ci mairie de Dakar il est entouré ci ay jeunes. yoo xam ni ñu ci bari opposition la ñu nekkoon. Mhm. xam nañu combat politique xam nañu combat syndical te ñoo ko entouré. d'accord c'est important Souleymane bu ñu ñëwee ci beneen candidat muy Ibrahima Fall Ibrahima Fall euh, moom euh, ban ban ban commentaire nga mën a def ci euh, juste ay résultats am selon tendance yi ñu am. waaw man de xam nga papa ngañ dama yàgg a wax ne Ibrahima Fall waruta woon bokk ci élection yi. Ah, lu tax. Euh, le, les quinze pour cent ont toujours voté pour les quatre premiers partis sénégalais. Mmh. Les candidats indépendants, bu ñu leen kalewul ci affaire u signature masuñoo dem élection am plus de deux pour cent xam nga déjà historiquement statistique yi baaxul ci moom. Mhm. waaye mu teg ci ñaari handicap bii mooy dafa gëj ci réew mi. ba sénégalais yi xamuñu ko sénégalais yu bari xamuñ ko diaspora bi xam nañu ko les anciens étudiants xam nañu ko ñaareeli handicap bi mooy équipe politique bi ko entouré amuñu expérience de terrain amut kilifa koo xam ne dañu ko ràññee ci wàllu politique su ne ci wetam Talla Sylla moo fa mujje ñëw moo fa am as tuut as lu ñu mën a wax ci expérience te boo gisee booba ba léegi kenn déggu ko am na ay semaines yoo xam ni il est très discret effacé wu kenn déggu ko donc dafa boole handicap yu bari yoo xam ne résultat am bettul kenn comme résultat ñi ci des parce que booy seet électeurs yi dañu am maturité boo xam ne papa ngañ toujours dañuy xool koo xam ne xalaat nañu ne mën naa am chance ñu woteel ko mhm. moo tax ñii ñëw nekk ay indépendant nit ñi xamuñu leen bu baax du ñu am lu bari teg ci encore lu am solo mooy bu nu waxee ne dafa jub man weddiwu ma ne dafa jub gëm naa ne sax ku jub la waaye xëy na jub boobu mu jub moo tax ba bariwul alal te élection alal la koy gagné. Mhm. parce que booy seet ordre d'arrivée candidat yi tamit ñii ëpp lu nu def ci xaalis ci seen campagne ñoom i tamit ñoo raw comme en mille 2007 noonu la woon. Mhm. donc xaalis am na solo ci campagne te. Euh, Ibrahima Fall bari lewu ci. d'accord donc euh, donc loolu moo taxoon ba hmm. ma xalaatoon ne warutoon a dem ci campagne bi. waru ci woon a donc donc loolu loolu moo loolu moo euh, firndeel résultat am ni nga ko gisee ku mel ni Cheikh Tidiane Gadio moom aussi Cheikh Tidiane Gadio. waaw Cheikh Gadio du politique xam nga politique dafa am ñu ko man euh, dafa am aussi ancrage sociologique. bi nga bokk maanaam fi nga xam ne fa nga soqee ko sociologiquement mhm. la réalité du vote au Sénégal mooy que ni président Sénégal booy seet pays wolof la koy fale ñaare pays wolof la koy fale ñaare mhm. avantage bi Macky am mooy que ni dafa boole encrage pays pulaar ak ancrage mhm. Sine Saloum pulaar yi tas presque partout boo demee ci banlieue bi ñoo fa gën a bëri boo mhm. demee ay Vélingara Kolda Kédougou ñoom moom ñoom ñoo fa ne mu boole sax ci séeréer yi nekk ci séeréer yi muy ñaar yu mu boole ah le pays wolof pratiquement parti populaire sénégalais yi nekk Sénégal yépp ci pays wolof la ñu soxe ko Kayoor Bawol nga xam ne ñoo daan fal buur daanaka mhm. ak Cap-Vert ñi essayé ñëpp la gauche historique booy seet ci ay minorité ethnique la ñu jugee historiquement ci Sénégal mhm. ñu ci bari dégguñu wolof dégg nga bu am solo lay wax ni ah, xëy na dina choqué ñu bari waaye noonu la yëf di demee euh, ñu marqué électorat populaire sénégalais dafay jafe te électorat sénégalais à 60 pour cent ci gox yooyu ma la wax fa lañ jugee ba nga xam ni gaajo dafa boole loolu ak tamit manque d'expérience politique militant mili milité ci clandestinité AJ/PADS nga xam ne jàng rek la ñu la laaj ay cellule ngeen woon cellule clandestine ak popula ak populisme bi nga xam ne moom nga soxla pour ñu fal la dafa wuute mm-hmm. amul moyen constitué wul entourage politique bu am expérience pour ñu man ko propulser mhm. dimbali ko mhm. moo tax ba ay des limites yoo xam ni moom la am ba mënut woon a sori ci élection yi mhm. waaw euh, damay dellu soir ci euh, président Abdoulaye Wade tey ak conférence de presse bi mu doon def euh, tey ci 17h30 presque vers 18h conférence de presse bi kaddu yi mu fa yëkkati ndax loolu nga doon xaar wala xaaruloo woon loolu Souleymane biñ ko annoncé lan nga doon xaar ci le président. dama doon xaar mu gën a dem fu gën a sori. Mhm. moo di ne mu wax nit ñi ni leen dafa am dëkk yoo xam ni fu nu ma désavoué en tant que président de la république mënuma xalaat di continuer di jiite réew mi. mu wax ne bu ma demee ba fa ma dëkk muy point E ma daan fa woote ba may opposant ba léegi ma dem ba sama bureau de vote bi ma voté sax nu ne ma déedéet bugguñ la ma génn ñu yuuxoo ma ba ma bàyyi fa sama carte d'identité bu ma xalaatee loolu yëpp damay wax nit ñi ni leen matal naa fukki at ak ñaar am na lu ma jéem am na lu ma ci réussir am na ci loo xam ni doxut mhm. bari na loo xam ni nit ñi meree nanu ma ko maa ngi koy rëccu maa ngi balu nit ñi ak maa ngi dem loolu mooy l'acte courageux dafa def service minimum service minimum moo di mu wax nit ñi ni leen gis naa lii xew nangu naa résultat yi élection yi fexe naa ba mu jaar yoon léegi lu ci am rek nu xam ne loolu la bu nu waree dem négocier nu dem négocier ji loolu service minimum la pour un républicain mhm. waaye ba tey ab Ablaye Wade daf nu tàmmaloon fitna tàmmal nu saaga tàmmal nu xuloo tàmmal nu attaque di attaquer opposition ba nga xam ni mën naa ne am naa ci mbégteel boo xam ni sedd na sama xol dans un sens parce que man manuma fàtte Ablaye Wade ba ma xamoon ba may nekk jeune journaliste mu nekk opposant je pense que bari na ay défaut tey bari na fi nit ñu fi dee bari na ay problème ci réew mi bari na xaalis bu nu luubal bari na yu baree bari yi doomam yi def doomam mu jigéen fetman bi mu ko jox milliards yi ci dépensé waaye ba tey tey sentir naa tuuti. moo tax sama xol xaw a fees Ablaye Wade bi ma xamoon waaye umpalew ma ne boo gisee mu def ko rek fekk dafa jaaxle dafa amut pexe. Mhm. parce que nit ñëw li mu daan li mu doon fexe bu sotti woon. Mhm. kon dafay toog fii fii mu toog foofu mu toog la la naroon a toogaat di xas nit ñi di leen saaga ndax noonu la defoon ci 2007. Mhm. waaye nangu naa ne. discours bi mu tenir mooy le minimum bu nu mën a xaar ci président de la république. donc mën nañu wax discours yu ñàkk pexe la kon. discours ñàkk pexe la. waaye du tere ñu accepter discours bi ci ni mu mel. waaye hmm. ñëpp xam nañu ne Ablaye wat bu demee bay wax ne dinaa négocier ak ñoo xam ne fii la taxawoon di leen saaga. dafa fekk mu ñàkk pexe. Hmm. waaw dafa xamut nu muy def. waaw amoon beneen pexe bu mu def. Hmm. kon dina ko def. waaw waaye. ba tey am na joo loo xam ne c'est positif. waaw ci li mu wax moo di ne mhm. arrêté na ba Senghor arrêté na waayam soosu di Serigne Mbacke Ndiaye mhm. ndax li ñu doon li ñu commencé woon di ko def moom problème rek la naroon a indi ci réew mi parce que nit ñi nag muñ nañoo muñ a muñ fii la ñu sësee mhm. mooy ñu ne ko léegi nee nga dañu lan accepté nga dem élection léegi ñun bugguñ ko waaye nangu nañu ko dem nga élection nee nañ la demal léegi demal Mhm. waaye bu fi buggee jalgati. waaw kon dina ñaaw torop torop. waaw wax wax wax nga léegi Souleymane lu fi ay doomam def wax nga Sindiély yi wax nga euh, ci wàllu Fesman bi ak yooyu yëpp mais man doomam bu góor laay wax Karim euh, parce que dafa may propos yoo xam ni Macky Sall daf ko yëkkati woon ni dàqul euh, jël Karim Wade dugal ko ci gouvernement bu yàlla defee loolu maanaam mu nekk ci gouvernement propos Macky yooyu ak yéeneem boobu nan nga ko gisee. du fi amee de. du fi amee de. Mhm. mu faloog ñàkk falu moo ci yem loolu du fi ame mhm. ah, dama yaakaar léeg-léeg nit dina wax wax rëccu ko fekk du xëy na du loolu la xalaat exactement ndax dañu ko laaj ne ko ndax nangu nga mu dafa wax ne xalaatut moom Karim jiite ko xanaa moom mu nekk yore équipe boo xam ni Karim mën na cee bokk waaye loolu sax du lu nit mën a nangu tey. Mhm. dégg Karim Wade damay jéem a juste ci sama wax parce que xam nga ne man naa gën a souffrir bu nit di souffrir bu amee koo xam ne teg nañ ko metti teg ko coono te Karim Wade def ko man mii la def naa fi juróomi at procès ak moom juróomi at mu boole ma ak avocat yu gën a bëri yu gën a cabinet bu gën a mag ci Canada mhm. dégg nga ñu topp ma lu ne ma daj ko ci lu ma amoon yëpp ma def ko ci donc mook sëram rakkam boobu ku jigéen donc waaye damay jéem a juste parce que moment bi moo ko laaj dañu wax ne il faut mu layoog nit ñi justifier milliards yi nu ko jox fan la dugg ak fan la jëlee moyen yu mu voyager en jet privé te benn ministre amu ko fan la ko jëlee ba noppi ñu laaj ko foofu mu def ministère muy Tamaro immeuble Tamaro appartement yooyu mu occupé kana ko moom ñu xam ko dégg nga il faut ñu xam Sénégal Airlines foofu ñu def seen si seeni locaux kana ko moom ay question yu précise la ñu koy laaj il faut ñu xam xaalis ci annonce yi yenn yu ñu def ci seen budget milliards yu ñu wax pour des villas présidentielles vingt six milliards te kenn gisu ko cent millions yi ñu wax ne dañu def campagne de communication dans le golfe te kenn gisu ko ci télé kenn gisu ko ci affiche kenn gisu ko ci journal mu wax ñu xaalis boobu fan la dugg ak fan la jaar mhm. waxuñu ne dafa def parce que il faut mu am la présomption d'innocence mhm. waaye il faut Karim Wade wax ñu xaalis boobu fan la dugg ba noppi milliards yi nga xam ne trois cent soixante quinze milliards yi ñu nga xam ne def nañ ko ci plan takkal mu wax ñu fan la milliards yooyu dugg. Mhm. loolu nag Karim Wade xam na ko de Macky Sall xam na ko de. te du moom ça ne dépend pas de de Macky Sall justice sénégalaise moom moom loolu. te dañuy xaar ci Macky Sall au moins bu nu ko falee mu respecter le principe de la séparation des pouvoirs renforcer l'indépendance de la justice sénégalaise. Mhm. il faut que Karim Wade ak si njël yi wat surtout si njël yi tamit mu wax ñu cinquante quatre milliards yi mu dépensé ci ñaari semaine au mois de décembre daaw géej fan la ko dugal waaw euh, euh, wax nga wax nga wax nga ñoom ñaar ñooñu euh, muy Sindiély ak Abdoulaye Wa ak kii di Karim Wade ndax ñoom rek la la ñu war a demander ay compte ci réew mi déedéet ñëpp képp ku nga xam ni da nga ci loo xam ni am na yoo xam ni wóor nañu kat tappa ngañ gis nañu ba fi ministre boo xam ni bëccëgu ndara kàmma mu jël budget ministère def ci trois milliards transféré ko dans un compte personnel mhm. nit ñi wax ko ko ban ministre la Souleymane Ndeye Khady Diop Ndeye Khady Diop mhm. dégg nga mhm. gis nañu les rapports de la cour des comptes xaalis bi nga xam ni jot nañu ko collecté ci Sonatel ak société boobu nga xam ni moo fa ñëw ne dafay contrôler les appels entrants. Mhm. cinq milliards yu njëkk a collecté kenn xamul fu mu dugg xaalis yi muy taxe redevance aéroportuaire nga xam ni dafa waroon a dugg dans un compte boo xam ne c'est à la banque marocaine du commerce extérieur mhm. normalement tugg dugal nañu fa plus de trois cent milliards mhm. il faut que ñu xam xaalis bi fan la jaar parce que compte boobu compte séquestre la waroon a nekk xaalis boobu kenn waru ko woon a la mhm. il faut que ñu leeral toute l'histoire ñu def l'historique xaalisi Sénégal fu mu jaar fu mu dugg lu tax ñu di koy def sax tappa ngañ dafa nekk ne dañuy bañ ëllëg mu am ñu xalaat ne fii lu la neex nga def kenn du la pini waaw mais bu fekkente ni kii di euh, bu bu yàlla defee Macky Sall nekk le président de la République euh, ñu xool hypothèse boobu rek ñu waxtaan ci parce que ci deuxième tour la ñu jëm te xamaguñu lan mooy am bu la toppul ci sa xalaat bi euh, lan mooy nekk sa taxawaay. xam nga nag Macky Sall bu fekkee moo falu ci trois premiers mois bu deful lu leer. bu ñu demee assemblée nationale du am moyen gouverner Sénégal parce que le charme démocratique bi nga xam ne exploité wuñu ko ñun ba léegi suñu constitution dañu ko inspiré ci constitution cinquième république bu France moo di ne normalement ki am majorité assemblée nationale yow yaa war a nommer sa premier ministre parce que président de la république mënut a gouverner ak ordonnance wala ak décret mënut a voté budget bu amul confiance assemblée nationale. effectivement premier ministre mënuñu ko fal bu amul confiance assemblée nationale. Mhm. les deux premières années président mënut a dissoudre assemblée nationale. Mhm. donc am nañu arsenal juridique boo xam ni mën na noo fàggandiku ba les trois premiers mois mu wóor ñu ne lépp lu nga xam ni dañu ko soxla ci coppite ci wàllu ni nga xam ne noonu la ñuy doxalee réew mi papa ngañ nu fexe ba Macky Sall appliqué ko. Mhm. waaye am na ñoo xam ni ci biir parti mi tamit. xam naa leen c'est de dignes patriotes. Mhm. xam naa leen parce que bu ñu dul woon ay bañkat du ñu jugee du ñu quitté Ablaye Wade wala du ñu quitté yeneen parti ñëw di xeex pour Ablaye Wade jugee fi. Mhm. y a des gens yoo xam ni xam naa leen. Mhm. dégg nga. ay responsable ci partem ñàkkuñ fayda ñoom Alioune Badara Cissé ñàkkuñ fayda. ñoom Benoît Sambou ñàkkuñ fayda. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni ñu ngi ci partem te duñu ko seetaan waaye Macky aussi je pense que ci sama xalaat parce que xam naa ko léegi mu am vingt ans mu ngi bëgg a yàgg gëm naa ni euh, bu fekkente ne bëgg naa réussir nu falaat ko pour un deuxième mandat dina góor góorgóorlu ba def lu tax ba sénégalais yi man koo fal mm-hmm. Sénégal il faut mu changer te dafa changé depuis démb Papa Ngagne Sénégal dootul melati ni mel ndax li nit ñi nangul Ablaye wat dootuñu ko nangul kenn dégg nga dootuñu ko nangul kenn te li fi Ablaye Wade def ñu di ko ñu seetaan ko kenn na dootu ko fi defati ñu di la bàyyi ku fi ñëw defuloo li nit ñi xam dinañu génn ne la us dàq la ci biti waaw wóor na nag leer na léegi ku ne ñaari mandat nga am boo defee sa ñaari mandat nga dem boo buggee ñaareeli mandat nag da ngay liggéey lu ne ci xam def lu baax ci réew mi. Mhm. waaw yaakaar nga Macky Sall sukkandiku ci charte assises nationale yi bu ko defee ñaari mandat yi nekk euh, deux mandats de cinq ans. man man xam nga dafa am principe boo xam ni papa ngañ démocratie adduna bi yépp noonu la ñuy doxee. waaye dafa nekkaloo xam ne aussi dafa am ay fondement psychologique ci nit. nguur boo ko yoree juróom-ñetti at. dafay doy loo ci teg rek da ngay yàq mhm. da ngay commencer du yàq moo tax les peuples ñaareel période de grâce nu mu yàgg a yàgg a yàgg dix ans lay yem mhm. nguur bu yemee dix ans rek nga gis problème commencé mhm. booy seet cycle yi Sénégal am problème huit ans la wala dix ans soixante la Senghor ñëw soixante huit ñu am problème dégg nga quatre vingt la Abdou Diouf ñëw quatre vingt huit ñu am problème ab war Wade 2000 la ñëw mille 2008 ñu commencé am ay problème mook sénégalais yi laa wax nit ñi di jóg di fippu. donc loolu c'est un enseignement bu nga xam ni dama xalaat man par philosophie et par principe. que ni mandat warul a passer cinq ans mandat sept ans c'est c'est impensable. c'est inadmissible. waaye ñaare bi mooy il faut ñu ma méngale les suffrages universels. suffrage universel assemblée bu nuy fal député bu nekkee juróomi at dama ko war a méngali mu nuroo ak suffrage présidentiel mu nekk juróomi at parce que suffrage bi benn la mënuñoo am kuy falu juróom-ñaari at ñu am keneen kuy falu juróomi at amul cohérence ki man ba nga xam ni mandat présidentiel bu ku ku intelligent sax da nga koy indi cinq ans parce que boo xaaree ba sept ans mën nañoo xalaat ni nit ñi dinañu doyal ci yow pour nga dem le piège bi lay wat def Abdou Diouf le piège mooy bi ñu nangoo bi Abdou Diouf nangoo bi nu paree ci code électoral bi mhm. mu def mandat boo xam ne dafa durer de 1993 à 2000 bu ñu defoon élection yi 98 xëy na dina rëcc parce que booba cinq ans rek def mais dafa def sept ans nit ñi doyal ci moom sonn ci moom mhm. baaxul nguur mhm. kenn du ci toog yàgg ci mhm. lii Ablaye Wade di dund c'est parce qu'il la fait dix ans mu bëgg a yokk c'est parce qu'il a fait dix ans mu bëgg a yokk nit ñi ne ko doy na parce que nguur yàlla rek moo dul jeex parce que yàlla moom dafa mat d'accord waaw d' accord euh, Souleymane ñi ngi wax nañu hypothèse bu Macky sàll bu nekkee président mais li nga xam ni bëgg naa la ko laajte euh, moom mooy bu ñu demee ci urne yi mu leer comme nii mu leeree le président Abdoulaye Wade gagné le deuxième tour est ce que di nga ko nangu. ah Papa Ngagne euh, bu ma accepté damay wax rek parce que honnêteté intellectuelle dafa baax bu ma accepté le principe que ni Abdoulaye Wade. participé na ci suffrage te ni Abdoulaye wat am na koo xam ni moom moo la opposé wul au deuxième tour ba ma nangu ci condition yooyu ma dem voté bu Abdoulaye wat amee majorité il faut man nangu ne majorité la c'est une probabilité boo xam ni xalaatuma ne mën naa nekk pour man mënuta nekk pour man c'est impensable waaye ki nangu dem jonga dem comme ab laay wat ci présidentielle. Mhm. bu yëf yi jaaree yoon laa moom moo war a njëkk nangu ne comme nangu naa bëreeg moom bu ma daanee naa nangu ne daanu naa. Mhm. parce que bu fekkonte ne d'accord ma ne war naa mën a bëreeg moom kon waruma foofu ci woon a dem. Mhm. loolu moo tax ba opposants yi ñu ci bari dañu manqué cohérence pap ngañ bi ñu jógee 2007 dañu wax ne Ablaye Wade dafa sàcc il n'est pas légal pourtant dem nañu waxtaan ak moom. dem nañu giseek moom bu ñu ci jógee nangu nañu affronter ko ci élection yi ñu dem ba ci biir élection yi ñu def campagne. ba dara desul du ñu dem élection ñu ne déedéet du ñu nangu Ablaye Wade di ci bokk moo ni de pourtant campagne nañu ak moom. ma ni leen dem leen. sénégalais yi léegi noonu atte nit ñi te gëm naa ne sénégalais yi danu nu atte parce que li fi Ablaye Wade def yëpp dafa bari mm-hmm. waaye li ñu gën a li gën a doy waat ci man Papa mm-hmm. mooy dama dégg mu ne dama ko dégg ci gémmi na tubaab yi ñoo ko laaj journaliste tubaab yi ñoo ñëw foofu ci palais dafa ne sénégalais yi jox leen ma juróom-ñaari at mm-hmm. ba noppi ni leen ñett rek laa ci soxla xam nga ngay laaj juróom-ñaari at ci mandat ba noppi ne leen ñett rek laa ci soxla moo di ne ñeent yi ci def da nga am ko bugg a jox mhm. loolu laa wax ne sénégalais yi il faut ñu bàyyi ci xel mhm. mooy que ni bu nu falee président de la république ak at yi mu am daal di wax ne ñaar ba ci ñett la ci soxla ci at yi dafa nekk ne dafa am lu mu ci fexe dafa am lu mu ci nat d'accord loolu nag mhm. na ko nit ñi bàyyi xel bu baax xam ne kii ñu bugg a fal bañuñu ko dafa def yoo xam méngoowut ak li ñu doon xaar ci moom mhm. mu teg ci ñëw bugg a jalgati ñaari yoon jalgati parce que bu ñu nangu woon jalgateem tey kon falo na président parce que vingt cinq pour cent yomb naa am mhm. ñaari bi mooy doomam bi mu fi bugg a teg mhm. waaw gënul sénégalais yi nag ba ñuy nangu moom mu ne fi ñu fal ko mandat mu bay jël mandat bi def ci ñaari at jël doomam jox doomam te loolu la fi fexe loolu la fi nag te loolu sénégalais yi du ñu ko nangu waaw xam naa dama lay dañuy ñëw ci question yu mujj yi rek ma daal di lay libéré euh, beneen bi mooy damay dellu ci benn candidat ku mel ni Cheikh Bamba Dièye euh, gis nga moom itam ay résultat ni mu demee combat bi ni mu ci sonne lool surtout ci place de l'indépendance moom aussi ban ëllëg nga ko gisal Cheikh Bamba Dièye. il est jeune. Mm-hmm. am na talent. am na image bu baax ci sénégalais. waaye defut li nga xam ne moom laa doon xaar ci moom. Cheikh Bamba Dièye élection présidentielle 2007 Talla Sylla ko raw Talla Sylla moo raw Cheikh Bamba Dièye 17000 voix la amoon nu dem ci Bennoo waa Bennoo jàppale ko ba mu falu nekk maire de Saint-Louis muy euh, prestige parce que Saint-Louis ci ville yu gën a yàgg ci àdduna bi la bokk mhm. les plus vieilles villes nu fal ko foofu bennoo ñoo dajaloo booloo fal ko du man-manam ak pexeem ñoom Alioune Badara Cissé ñii ñoo dem fal ko bi loolu amee ci la gëjee réunion benn ñooñu di waxtaan dëgg la waxtaan bi yàgg na waxtaan bi àggagut sax mu ni leen man damay présenté wu nekk candidat dafa fekk position maire bi mu am mu jëy ko ba xamatul li mu man ak li mu manut ma ni leen dix-sept mille voix kuy nekk président Sénégal il faut nga am un million de voix au moins mhm. ma pour mu mën a am chance dem deuxième tour il faut mu multiplier score bi mu am par quarante entre deux mille sept ak léegi dégg nga manu ko mhm. bi mu demee ba ci biir gis ne manu ko mu commencé di daanoo di takk boppam buum ak di takk boppam ceen ak dama gaañu fii dama lii fii san ne l'a am na talent il est jeune il est bon dégg nga et puis am na image boo xam ni dafay jàll ci sénégalais mais heure moo ñëwagul. génération moo ñëwagul bu fi ñoom Moustapha jugee ñoom tanoor juge fii moom mën naa ñëw compétition. ak ñoom Idrissa mhm. ak ñoom euh, Macky mhm. mais dafa teel loolu laa xalaatoon moo tax ma xalaatoon ne mënoon mhm. naa dem nekk ci ginnaaw yi Moustapha Niass mbaa mu nekk ci ginnaaw yi keneen kon dina baax ci moom dina mën a jugaat mais il a de avenir. ci sama xalaat am na avenir. waaw loolu loolu am na solo am na avenir loolu xam naa ni moom moo ci ëpp solo mais dama ñu jàngat ay propos yu tukkee ci ki nga xam ni mooy porte parole sa Seck euh, mu wax ni. Euh, deuxième tour ñoom fa ñu taxawoon fa la ñu taxaw waxoon nañu ne euh, bépp candidat bu jóge ci opposition bi dem jàkkaarloo ak Wade yow la ñuy jàppale ñoom nee ñu la ñu taxawoon foofu la ñuy taxaw ba tey ndax loolu noo ko gisee constance la ci Idrissa ay propos wala nan nga ko jàngatee. pour jàppale Macky Sall. Ah, waaw xam nga xam nga nag <laughs> papa nga il faut léeg-léeg nuy fàttaliku histoire. Mhm. surtout histoire récente. dañu mas a woo sa ci télévision. ne ko da ngay attaqué Djibo Ka nga jotee moom. mu wax journaliste bi ne ko il incarne la tortuosité. Mhm. maanaam juba gi kooku ne nekkoon lu tax muy incarner la tortuosité mu fàttali ko la Djiboka defoon diggante ñaari tour présidentiel 2000 yi mhm. mooy ne sénégalais yi opposant bu jiitu moom laay wooteel mhm. ba dem ba ci biir mu ëlbatiku dem seeti Abdou Diouf génn wax ko dellu si waat seet si waat Abdou Diouf waxaat leneen loolu topp ko ba tey mhm. Idrissa dafa wax débat télévision que ni opposant bu jiitu bu dem deuxième tour moom lay faral ba noppi mu def déclaration après daa di ne il faut que Macky Sall s'engage à soutenir le candidat qui arrive au deuxième tour il ne l'a pas dit clairement il faut que mu wax ko ba mu nit ñi dégg ko mhm. Idrissa moo def li bu loolu passé Macky def li mu wax dégg nga. Mhm. donc Idrissa moo doon insister que ni toute l'opposition s'engage à soutenir le candidat de l'opposition qui arrive au second tour maanaam képp koo xam ni yaa bu deuxième tour boo jógee ci opposition di opposition contre Abdoulaye Wade rek yow la ñu war a jox sa yow la war a jox yow lay jox sa carte. Mhm. donc looloo tax ba ñemewul. Mhm. def leneen ah ñemewul def leneen pour yow. ñemewul def leneen. d' accord Moustapha Niass aussi dañ ko dégg moom moom ci gémmiñu boppam sax la waxee wax ni xel xalaatul benn yoon muy soutenir Abdoulaye Wade te Abdoulaye Wade sax xalaatul ñëw di ko rencontrer pour wax ak moom ci lu jëm ci mu soutenir ko. waa loolu gëm naa ko waaw loolu loolu moom gis nga Moustapha ci 2000. Mhm. man. maa ngi doon suivre discussion yeeg négociation yi bi lay Ablaye Wade ñëwee kenn rekk laa gis Ablaye Wade demandé ko pour mu soutenir ko mu bañ ba man maa wax Ablaye ne ko demal ba këram nga seeti ko dangay ngay bàyyi ba da ngay dem ba këram dox sa tànk seeti ko mooy Ibader Moustapha Moustapha mhm. Ablaye Wade dafa dafa jónne ndaw ñu seeti ko rek booba majey na ak Idrissa ñoo daje Moustapha ne ko dama joxe sama kàddu ba noppi dama wax ne opposant bu ñëw deuxième tour moom lay supporter loolu laay def manumaa def leneen booba muy wax xam booba xam na Ablaye Wade bu baax booba xam na Ablaye wat xam na ni Ablaye wat men uh-huh. xam na li lay wat naroon aussi parce que yàgg naa xam Ablaye Wade bi Ablaye Wade di set si ak Senghor pour créer parti boobu PDS Moustapha Niasse ko ubbil bunt bi kon xam na ko waaye dafa joxe woon kàddoom respecté na ko lii ma nga xam ne moom laa la waxoon Papa Ngañ te mu am solo lool mooy dama ni la ku nuy fal dafa war a nekk nit ku am kàddu loolu gis naa ko tuuti ci Macky Sall au moins naa ko reconnaître lool waaw que ni am na sens de l'honneur boo xam ne bu waxee dara dina ko def lu mu gëmul du ko wax mhm. te loolu moo tax ma am tuuti yaakaar ne mhm. réforme yi ñu espérer dina ko indi mhm. waaye assise nationale du ko appliquer ci yenn point yi d'accord naa ak moom wax naa ko je pense que régime présidentiel newut ne régime présidentiel moo am problème parce que problème bu ñu am newut ne problème yi excès de pouvoir du président de la république problème d'équilibre du des pouvoirs la ñu am mhm. mooy que ni Abdoulaye Wade dafa am pouvoir assemblée nationale nekk ci loxoom muy def lu ko neex waaye bu assemblée amoon pouvoir yi Abdoulaye Wade am kon dafay équilibré kon du ñu nekk fii tey di am mhm. problème yi ñu am mhm. Euh, euh, léegi ci euh, alliance yi laay wax ndax loolu mën na jur lu am solo par exemple parce que gis nañ ko ah Djiboka ak euh, ak le président Diouf gis nañ ko euh, ci ci alliance yi ci deuxième tour yi ndax le fait que le candidat donne le consi joxe consigne bi ndax loolu mën na mën na jur mën na amal avantage candidat bi mu ko jox est-ce que électeurs yi dinañ suivre yooyu est-ce que loolu en général dina am njariñ. waaw dina am njariñ ci contexte bi ñu nekk. parce que dañu nekk dans un contexte boo xam ne dafa am division yu profonde yu mag a mag ci l'électorat dafa wax def lu tubaab di wax polarisation dafa polariser dafa am ñu contre Ablaye Wade am ñoo xam ni Ablaye Wade la ñu àndal ñi contre Ablaye Wade nag gëmuma ne am na lu mën a tax ba ñu dem woteel Ablaye Wade gëmuma ko hmm. waaw parce que euh, donc moo tax ba ma xalaat ne consigne de vote yi dina répercuté wu automatiquement dafa mel ni 2000 rek bi Djibo Ka waxee ne nañ dem woteel du juuf am na responsable yu bari yoo xam ne ci mm-hmm. parteem mm-hmm. mooy ñoom Mahmoud Saleh ñoom Aziz Sow ak ñu bari mm-hmm. ñoom Bakar Jami tey ñu ci bari dañu bañoon tey wóor na ma ne bu Idrissa gëmuma ne dina am waaye bu waxoon ne nañu dem jàppale ji Ablaye Wade ku mel ni Bakar ja du dem wóor na ma wóor na ma ne du dem donc gëm naa ne vote yi dina am consigne de vote yi nit ñi dinañu ko respecté. Mhm. automatiquement moo tax ba gëmuma ne Ablaye Wade am na benn chance pour génn ci. waaw ku mel ni Abdoulaye Baldé gis nga ni moom dama bëgg ñu taxaw ci parce que li tax moom mooy euh, dafa mel ni ku frustré wu ci ci ci partie bi euh, notamment li xewoon euh, Ziguinchor bi fa Ablaye Wade demee loolu révélé na ko. Euh, ku mel ni moom ndax gis nga avenir ci biir fal ou bien na nga ko gis ailleurs avec Macky wala keneen nan nga koo gisee moom avenir am. Abdoulaye Balde amul place ci PDS du philosophie du xalaatam du pratique am Abdoulaye Balde ba mu nekkee ci gouvernement bi ma fàttali leen ne bi mu ci duggee. li nga xam ne moom la njëkk a def quelque années après te moo ko topp tey moo di ne dafa dañu mujj wutal ko ay garde ci këram parce que waa PDS dañu ko doon woo di ko menacer di ko saaga ndax booba am na yu bari yoo xam ne dañ ko doon buggu présidence muy jàll mu munu ko woon a def ndax xamu ko juriste la commissaire de police la lu mu jàng yëpp affaire loi la mu dem jàngi administration waaye luñ ci waroon a bañ yëpp dafa mujj nangu ko Farba Senghor moo def déclaration wax ne ku bëgg a toog ci gouvernement bi da ngay dem jàppale ji Ablaye Wade mu dem gaajo be wax ko fa Cheikh Tidiane gaajo dégg ko <clears throat> Cheikh Tidiane gaajo dugg ci moom ab Ablaye de mu dugg ci moo ko jural lii waaye amu fa place dafa war a dem mhm. dafa war a dem fan nga gis mu war fa dem moom ci ëllëgam. Idrissa la gënoon a jige ndax Idrissa ko saa ko indi présidence. <coughs> waaye defe naa tey ni yëf yi ja bu dee dem xalaat naa ne ci Macky lay dem. parce que daje na ak yi waxtaan nañu te am na lu tuuti lu nu ma baaxee ci seen waxtaan. loo xam ne xalaat naa ne. bu de bu dellu bu demul ci Macky yi tamit deuxième tour dina joxe consigne de vote pour ay nitam woteel Macky PDS bu ma ci ñëwee sappi naa ci kenn muy Abdoulaye Baldé mais PDS en général le parti démocratique sénégalais ñoom bu fi gannaaw Abdoulaye Wade lan mooy nekk ëllëgu parti boobu pour yow euh, nga xam ni ci wàllu politique sa xam-xam màcc ci lan mooy nekk ëllëgu euh, PDS. Abdoulaye Wade dafa def PDS. li mu ci bëggoon mooy tas PDS pour créer leneen ci ginnaawam. mooy loo xam ne génération du concret génération du concret la. génération du mhm. dafa waroon a continuer ba mujj dem ba ëmb PDS wër ko ba PDS sey ci biiram. Mhm. jaay nañu ay carte def nañu lépp ba Ablaye Wade xalaatoon na dafay tudde beneen tour parti démocratique sénégalais waaye échec bu ñu am 2009 te ñu waxoon Ablaye Wade ne placé nañu huit cent mille cartes bi ñu ko waxee dama ni leen ku am xel mënuta nangu loolu parce que parti communiste chinois sax tolluwut noonu dégg mhm. waaye seen plan échec léegi dafa tasoon PDS. ndax képp koo xam ne numéro deux nga woon ci PDS dàq na la ba léegi kenn rek moo ci desoon muy Macky mhm. dàq na ko mhm. et le PDS se retrouve nekk un parti sans numéro deux sans structure du ñu daje lu dul bu Ablaye Wade ne ñu daje commité directeur ba ñu dem ba même investiture commité directeur moo koy def congrès PDS mënuta am mhm. léegi ña fa desoon dem nañu ba Ablaye Wade bu bu bu mu buggee falu sukkandiku ci PDS ci fal la sukkandiku mhm. nga xam ni ña fa ne ñu ci bari ñii URD lañu ñu bokkoon ñii AJ/PADS la ñu bokkoon kii mhm. CDP la nekkoon ñële parti socialiste la ñu nekkoon muy ne PDS tas na Abdou Fall mii fa newoon jóge na fa mhm. léegi nii ñii ñu waxoon génération du concret am na ñu ci gagné quelques maires yi waaye amuñ ci kenn ku ci am dimension national te image Karim Wade jàllul. Mhm. Souleymane Ndéné Ndiaye boo jugee Guinguinéo amut représentation nationale amut base nationale donc amut kenn koo xam ne tey bugg na sax PDS parce que PDS Ablaye Wade daf ko jël ba transformé ko ba nga xam ni kenn buggu ko. Mhm. moo tax mas naa laaj Idrissa ne ko xaw ma looy doyee PDS xaw ma looy doyee PDS parce que PDS ci boppam kenn buggatu ko waaw. bu ma la bu ma la déggee mooy euh, bu ñu demee ba kenn bëggatu ko mooy amatul benn avenir PDS euh, mais bu ñu bu ñu bu ñu jógee foofu muy parti démocratique Sénégal dañuy ñëw ci euh, beneen wàll muy ku mel ni Youssou Ndour Euh, Youssou Ndour wu fekkee ma ci boole moom gis nga bi mu démarré ak sa candidature bi nga xamee ni invalidé nañu ko reculé na mais toujours mu ngi ci combat M23 euh, moom aussi ban ëllëg nga ko gisal dafa war a retourner waat ci euh, ci musique am wala danga gis ni dynamique bi mu jël ni ci politique mën na ci am avenir. waaw damay trahir loo xam ne Youssou mu ko waxoon. Mhm. defe naa mën naa koo wax parce que. léegi ñu ngi ci am na huit ans ci ginnaaw ci la ma waxoon intention am mhm. engagé wu bu amee cinquante cinq ans mhm. ne dafay politiquement bu amee cinquante ans juróom fukki at ne ma il faut que mu engagé wu politiquement mhm. pour dëkkam et euh, booba li ñuy wax kenn waxagu ko amagut situation bi amagut donc du idée boo xam ni dafa tëba tëb rek jël ko réfléchir na ci nu bon bon bon at yi ma la wax bi mu ko ma ko waxee ba tey euh, dafa nekk am loo xam ni il faut nit ñi di ko bàyyi xel mhm. képp koo gis ci àddina nga mujj nekk un leader buy xeex pour dëgg dëgg la da nga jóg pour xeexal nit ñi waaye ñaare dafa fekk yow ci sa bopp nga nekk victime injustice mhm. parce que ku ku injustice dal moom moo mën a xam lii ci injustice dëgg la mën a jóg xeex ko pour mu bañ a dal kenn mhm. et loolu mu def daf ko préparer aussi mhm. tey am na un empire médiatique boo xam ni c'est un groupe leader ci wàllu média au Sénégal mhm. am na nit ñi xam nañu ko am na bayre boo xam ne liggéeyam la ba mu amee fukki at ak juróom ba léegi mi ngi kay xeex mhm. mu ngi ci liggéey ñu ràññee ko ci àddina bi donc loolu bu waxee ne daf koy utiliser un jour pour avancer loo réewam ci wàllu démocratie je pense que ñëpp dañu ko war a saluer. Mhm. bi muy dugg ci campagne bi danu ma laaj interview benn site bu ñuy wax Slat Afrique nu laaj ma mu ne ma lan nga xalaat ci dugg yuusu ci campagne bi ma ne dugg yuusu ci campagne bi dafa am deux ñaari fànn yoo xam ne dañu ko ci war a xoole bi ci njëkk mooy le côté sociologique mhm. pour la première fois nu am koo xam ni dafay woy surtout Youssou Kotel nga xam ni ñëpp xam nañu umpul kenn li nga xam ni moom la kenn ci woy juram daj pour mu bañ a woy mu dem ba woy may ko li mu am may ko prestige may ko tur may ko wax dëgg yàlla alal mu am ci barke ba tey mu mën a ñëw di bokk ci langue politique bi nekk un leader d'opinion mhm. empire médiatique bi mu am tamit muy liggéeyam pour man c'est un exemple de réussit mhm. dafa dafa kase ay tabu yu sunduur dafa dafa daaneel ay barrières mhm. yoo xam ni nit rek la woon Papa Ngagne mhm. nit pour jiite réew qualité yi nga war a am dégg du qualité yu ñuy jànge ci université du lu ñuy jàng ci école luy sax ci yow la ci sa yar ci sa jaar-jaar ci sa xam-xam ci sa expérience mhm. moom mooy tax nga nekk njit bu baax mhm. un président bu baax mhm. du looy jàng ci université du looy jàng ci école d'accord mais nan nan nga gisee par exemple waaw waaw uh-huh. de ma ma ma allez-y allez-y euh, excuse-moi allez ñaareel bi mooy intérêt bi médias internationaux yi am ci sunu campagne ah d'accord ba ñu relayer ko ba tey Ablaye Wade am na yoo xam ne ñemewu koo def parce que nit ñaa ngi koy bàyyi xel. ba mu mhm. dem ba le magazine Time titre ci Youssou Ndour. Mhm. bu ñu ko amee tey attention boobu nanu ko santé Youssou. Mhm. il fait partie ñu tax ba élection Sénégal yi ren mu am intérêt médiatique bu mu am ci addina bi. partout ñu di ko wax. waaw donc loolu. c'est un plus bu mu indi ci campagne bi. engagement politique am nag. je pense que woy bi activité artistique dafay secondaire léegi parce que Youssou je pense que liggéey na woy na ba am droit yoo xam ne muy ay droit d'auteur ak yu bari ci addina bi mhm. peut-être que bu toogee sax xëy na man na cee dund mhm. te il a un groupe médiatique buy prospérer c'est un entrepreneur de près léegi defe naa moo ëpp mhm. en tant que homme d'affaires lu muy def que lu muy way d'accord euh, ci li ñuy jeexale nag moom mooy suma question bu mujj rek muy euh, violence bi nga xam ni moom moo jural euh, Barthélemy Diaz élection yi fekk ko mu libre moo jural tam ku mel ni Malick Noël Seck bu parti socialiste ñoom ñëpp nekk ay ndaw ay jeunes bokk ci benn parti élection yi fekk leen kaso nan nga gisee loolu Souleymane ah waaw man day yem na ma lool te metti ma lu tax mu metti ma mooy Barthélemy sama rakk la sama rakk la dañu ànd fu bari di xeex maa ngi génne keroog sama photo yi bi ñu may agressé Chicago dañu toppante di dem di dugg man maa ne ko bàyyil man ma dugg du ñu ma xàmmee yow bu ñu la gisee dinañ la xàmmee kon bàyyil ma jiitu la ma jiitu ko 10 man ma dugg mu ñëw moom ñu xàmmee ko bloqué ko donc foofu man ma dugg ñu dóor ma fa agressé ma fa peut-être que bu ma ko waxul woon loolu kon moom loolu moom lay dal. maa ngi fa woon Talla ngi fa woon Barthélémy ngi fa woon fu ma dem di xeex ci àddina bi Barthélémy ngi sama wet Barthélémy fu mu duggee ci campagne jàppale naa ko jàppale naa ko ba mu jël euh, jeunesse socialiste fexe naa xeex naa ba mu nekk maire. Mhm. contribuer naa sax financièrement ci campagne am dégg nga mhm. donc. lii xew metti na ma lool waaye du ñu fàtte contexte global de tension bi ko indi. Mhm. ndax bu amul woon ñoo xam ne dañu dem foofu indi fa ay indi fa na kon lii du am. Mhm. am nañu ci dee ah bu doon sama sago dee kenn du dee ci Sénégal ci condition yi nit ñi dee am na ñeneen ñu dee. Mhm. Euh, masuma nangu affaire am nit masuma ko xalaat. waaye pour man képp koo xam ne da nga commettre un crime da nga ci war a répondre mhm. waaye am na circonstance historique yoo xam ne ay trouble politique yoo xam ne bu ñëwee dafa am façon yi jëfin yoo xam ne façon yi situation yoo xam ne kenn mënu koo leeral mhm. kenn mënu koo leeral kenn mënut a wax avec certitude à cent pour cent tey ci yan condition kooku ñu rey foofu ci lañu ñu ko fa reyee. Mhm. donc maa ngi espérer euh, ñu dem ba yëf yi leer ba ñu àtte. d'accord et que bu fekkente ne dafa am un doute boobu mu bénéficier Barthélémy Diaz. Mhm. moom laay ñaan. pour Malick Noël Seck ak les armes blanches maanaam ngànnaay yi ñu fekk ci otoom. waa papa nga dama yaakaar ne bu fekkente ne moo ko def il n'a pas intelligent manqué na xel foofu manqué na jugement ndax bu ñu la jàppee ngay leader convergence socialiste war ngaa xam ne foo tollu agent brigade mobile de sûreté ñu ngi la topp di la surveiller am na erreur yoo xam ni waroo koo def. Mhm. waaye amuma ci firnde. Mhm. ne moo ko def. Mhm. bu fekkente ne la la règle en matière pénale c'est la règle de la preuve. Mhm. manuloo jàpp nit soo amul firnde. ne lii ngay wax moo ko def li nga koy ji. wóoruma waaye bu fekkee moo ko def. def na erreur. voilà. Euh, Souleymane ma bàyyi la nga tàggook mbokku Sénégal ndax fi mu nekk nii ñëpp ñu ngi lay seetaan ci télévision Futur Média euh, ma bàyyi la nga euh, wax ak ñoom tàggatoo ak ñoom bu ko defee ñu joxante daje incha allah bu la ko sa jot mayaatee dinañu dajewaat ci daje yu mel nii defaat yeneen analyse ci wàllu politique ma bàyyi la nga tàggoog mbokk yi. waaw damay sant sénégalais yi. c'est un grand peuple peuple Sénégal ñëpp laa wax nag. wane nañu maturité ñu ne ci kaw gi ñu ne ci réew taax ñu ci banlieue yi partout mag ndaw ñépp mobilisé na mun nañu li nuy lenn rek lañu ci wut mooy Sénégal jëm kanam Sénégal gën a naat Sénégal gën a baax mu nekk réew moo xam ni ñépp ci yem égalité nekk benn lu waay am boo tenee sa morom nga mën ko ci dimbali réew mi fi ne ak nguur gi mu nekkal fi ñëpp ñu bañ a fàtte kenn ndax ñun ñëpp benn lañu loolu bu nu ko buggee nag dañuy jóg taxaw jóg taxaw mooy ñu ngi am na nañu deuxième tour boo xam ni bu neexee yàlla dinañ ci dem épp koo xam ni da nga fàtte woon a woote wala faydaanuloo woon élection yi nga jóg jëli sa carte dem mën a woote looloo gën looloo baax foo woote baax koo wooteel dinañu ko nangu respecté ko waaye c'est un devoir civique boo xam ni ah waruñu ko fàtte waruñu ko sàggane waruñu ko bàyyi maa ngi leen di gërëm bu baax jërëjëf Papa Ngagne voilà jërëjëf Souleymane euh, Jules Diop mbokk yi mu nekkoon euh, Souleymane euh, Jules Diop taskatu xibaar la fii la fekk baax ci Sénégal waaye ma ngay dund jamono ji ca Canada tey euh, TFM àndoon ak moom doon jàngat euh, tolluwaay réew mi ci wàllu politique euh, ñi ngi koy gërëm bu baax di ko sant ci li mu ñu ko nangul ànd ci ak ñun kon mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci waxtaan bi aju woon ba tey ci édition spéciale yi nga xam ni TFM defal na leen ko dinañ ci dellu siwaat ëllëg incha ci nu mu gën a yaatoo jër ngeen jëf mbokk yi.